asalaamaaleykum ami cher fidèles internautes maa ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar di amaan mbégte janoog yéen ci seen chaîne leader bi lee di Equivox TV comme ni ma koy waxee à chaque fois c'est la chaîne leader mais aussi c'est la chaîne qui informe juste en temps réel tey nag ñu am mbégte euh, dalal koo xam ni kenn dootu ko présenté euh, Sénégal muy Abdoulaye euh, du gisee nekk président du parti Fulla ak Fayda waaye tam nekk conseiller spécial bu ADD Abdoulaye Daouda Diallo te nag moom la ñu waaw euh, Fat Bintou man aussi maa ngi lay maa ngi lay jaajëfal di la ne bienvenue aussi fi à Pikine parce que tey moom euh, dama am mbégte parce que fii à Pikine c'est toujours un plaisir ma ñëw di di rencontrer fii euh, samay invité presse yi donc di di ñaan aussi seen chaîne bi yàlla may leen ndam donc comme ni nga ko waxee rek chaîne leader la donc li ñu leen rek muy gudd fan donc di ñaan di nuyu waa Pikine yëpp di nuyu waa Sénégal yëpp et di nuyu aussi seen internautes yëpp waa effectivement ñu ngi si parrainage bi d'ailleurs ñun le le 16 septembre euh, remettre nañu Ablaye Daouda Diallo euh, soixante deux mille euh, signatures donc ay parrainage yoo xam ne dañ ko jotoon collecte si quatorze régions yi parce que comme ni mu la ko rappelé rek ñun dañoo teeloon sax annoncé suñu candidature pour la présidentielle donc Idrissa Diop don su le directeur de campagne maa ngi koy nuyu au passage mais nag bi yàlla dogee ba Abdoulaye Daouda Diallo convaincre ñu pour que ñu rejoindre la bon parce que déjà ñu ngi woon nekk ci mouvance présidentielle mais mais nag euh, que aussi ñu ñu ñu wàññi euh, candidature yi pour mun a am euh, être ce qu'on appelle dans l'ère des grands ensembles léegi nag ci loolu ñu nekk ñun euh, ñu woote suñu secrétariat exécutif bon ñu juge nécessaire que ànd ak Abdoulaye Daouda Diallo si choix le président Macky Sall mooy li nga xam ni mooy gën a rassurer euh, ñi nga xam ne tey bëgg nañu le président Macky Sall et son bilan si chaîne euh, YouTube yi si chaîne de télévision yi parce que tout simplement plateau yi ñu fay nekk ñi naan sax chroniqueur lañu ay partisans lañu xam nga tey lan moo ñuy war a dimbali ñu amoon ay chroniqueurs yoo xam ne il s'intéresse au programme il s'intéresse au parcours nit ki ban lan mooy parcours am il s'intéresse ay ak avenir Sénégal parce que ñetti dimension yooyu buñ ko ñun buñ ko jëloon def ko sunu euh, cheval de bataille mais on aura une presse crédible on aura une classe politique crédible mais nag euh, tey boo xoolee classe politique bi nu mu mel c'est c'est noonu la presse sénégalaise mel seetlu lu baax li ma la classe politique ni ñu mel bu dee dañoo dëng noonu la presse bi dëngee bu dee ñoo jub noonu la presse sénégalaise jubee parce que tout simplement dañ da dañoo da yore presse boo xam ne euh, dañ leen di commandé da nga gis benn waay <laughs> kii lii la kii lee mais lu neex kooku rek la ñuy wax suba ak donc euh, man je di dis am na plateau télé man personnellement du ma fa dem du ma fa dem parce que ñoom seen bopp sax ñoo bëggul ma ñëw foofu ci plateau yooyu parce que li may wax inter kii maanaam ça les dérange parce que ils sont avec Ousmane Sonko bugguñu man may ñëw seen plateau di wax wax Ousmane Sonko donc pour te dire que on n'est pas une presse yoruñu une presse euh, boo xam ne référence man damay wax sax tey yenn chaîne YouTube yi ma yàgg naa ko ma ne président de la République Macky Sall tey am nu mu doon def mu créer des emplois à partir des chaînes YouTube parce que am na chaînes yoo xam ne dañoo organiser wu xëy na ñu licence pour nekk télé euh, agrément mais boo xoolee ils sont organisés ils font des ils font des dañuy dañuy elles des émissions yoo xam ne tey euh, ay émissions de référence te ay jeunes laa fay gis ay xale yu ndaw yoo xam ne tey ku leen assurel ay salaire u deux ans trois ans cinq ans mais euh, tu vas avoir des professionnels dans l' avenir waaw mais nag lu ñuy gis fii nga gis télé yenn télé ñu naan télé yu mag la ñu ñu fa nekk lan la ñu nekk ay lobby lobby sa lay rek ñu dañuy benn homme politique wala ñaari homme politique jeex na loolu c' pas bien diggante ñi nga xamante ni ñoom ñooy waa ci euh, Pastef ak waa DGE. Mhm. ginnaaw juge bi nga xamante ni moom mooy Sabassy Faye ba mu joxee dëgg ñoom Ousmane Sonko pour ñu réintégrer ko ci li nga xamante ni rek moom mooy euh, liste yi. Mhm. jox ko fiche de parrainage am ñu dem fa demati fa moom Ayib Daffé mi nga xamante ni moom mooy mandataire bu Ousmane Sonko. Mhm. ñu ñu bañ koo jox li nga xamante ni rek moom mooy euh, li nga xam ne moom mooy fiche bi. tey bu ñu sukkandikoo tey ci article alinéa 4 bu suñu code électoral li mu wax leer na les décisions de justice dañ ko war a appliquer à la lettre mhm. tey ñu gis loolu amul tey mhm. est-ce que aussi tamit joolewul un peu la loi mhm. waaw léegi euh, man d'abord euh, xam nga décision de justice boobu nga wax ne dañ ko war a appliquer à la à mooy quand la décision justice elle est. en fait ci communiqué bi nga xamante ni directeur général des élections def na ko. waaw yemoon ci loolu noonu parce que. waaw léegi léegi wala ordonnance la léegi <laughs> léegi léegi gis nga euh, tey euh, Bintu dafa am lu ñu ñi ignoré li ñuy ignoré mooy euh, feu de paille la c'est-à-dire que on parle ay décisions Ziguinchor wala yooyu yëpp ay feu de paille la man à mon avis xam nga lu tax parce tey. on ne peut pas être Ousmane Sonko mënul nekk principal négocier pour toog principal négocier pour am issue heureuse et tardivement parce que négociation bi muy def il l'a fait tardivement il devait le faire en amont. non gis nga même keroog dafa reprendre reprendre grève de fin mais loolu yëpp ay ay coup d'épée dans l'eau la c'est-à-dire que euh, parce que mu ngi négocier pour nekk nekkam principal euh, dañ ko dañ ko accordé ba pare Ousmane Sonko jàpp nañ ko avant vendredi boobu ñu ngi yéen ñuy ñuy yëkkati ñuy ñu naan bus boobu la ñu ñëw fekk këram jàpp ko Ousmane Sonko je dama lay jox benn benn benn kii rek ay ay indice yu ndaw euh, bi ñu yëg bi ñuy entouré këram barricade ko ci période boobu lañ ko jàpp yóbbu ko enquête ko ba mu avoué ba mu signé protocole xam nga luy protocole protocole xam nga dañ ne Karim Wade defoon na protocole mais Ousmane Sonko bokkul Ousmane Sonko protocole bi coopération la maanaam il coopère avec les services les forces de l'ordre avec la justice c'est-à-dire da ngay coopérer ñoom aussi ñu am luñ la nangul moo tax benn waaye nee na ma pourquoi nga ne euh, euh, dafa dañ doon négocier te état du négocier ma ne no non waxuma la état dafa négocier dama ne la même tey nga demoon FBI bu ñu la jàppee bu ñu jàppee terroriste bi gën a mag ci àdduna dañ naan terroriste bi boo nangoo nga coopérer ñu am luñ la nangul am luñ am am loo ñu nangul mais loolu nit ki jugé guñ ko. Ousmane na lu. non lu jiitu vendredi boobu jiitu na xam nga Fatou Bintou même boo seetloo man wax naa ko je défie quiconque quiconque na ma indil vidéo parce que tey dañoo yore presse boo xam ne rek duñ def ay enquête tey euh, euh, jàpp nañ ko yóbbu nañ ko négocier nañ ko ba sëñ Mountakha sax yónni na ci Macky Sall délégation période boobu. waaw période boobu sëñ Mountakha yónnee na ci Macky Sall délégation bu dem ba palais ñu wane ko tele ñu naan dañ fa ñëwoon seet ci Macky Sall sëñ ma sëñ Bass période boobu bi ñu euh, bi ñu négocié ba nga xam ne dans le cadre de la coopération moom bi mu nangoo signé ak protocole de coopération coopéré ak force de l'ordre et de défense de l'État du Sénégal loolu c'est différent que ñu ne Ousmane Sonko justice bi la doon coopéré no ñi nga xam ne ñoo koy enquête ñi nga xam ne tey ñoo découvrir ne il est dans le terrorisme avec des des chefs de euh, AQMI Al-Qaïda euh, Tchad Niger Mali ñooñu ñëpp mu ngi coopérer ak ñoom ba gars yi jox ko ay preuves mais il a accepté il a signé léegi nag lan moo waral jabar yi génn jabar Ousmane Sonko génn di ñaan lan moo tax ñu war ñu génn di ñaan di ñaan njekk njekk lañ ñaan de di ñaan parce que xam nañ ñu ngi ci position faiblesse léegi nag léegi lenn dafa am. Ousmane Sonko mu ngi négocier mais en même temps beneen ellu Pastef mooy lel lel bi nga xam ne il faut croire au gens que ne voilà waa ji non day grève de la fin waa ji non day nekk kanida bu nekkul kenn du nekk kanida loolu ay wax la man maa la wax nii Ousmane Sonko nekkul ci dynamique boobu moom ci boppam nekku ci nekkatu ci. kon dafa surseoir sax dafa surseoir sax euh, euh, sa sa sa carrière politique au Sénégal Ousmane Sonko. booy dafa sursoir moo tax ma ne la ay DG nii waa euh, kii bi juge bi Ziguinchor mais sa waaye loolu football nawetaan la dépassé nañ ko te ba jusqu'à preuve du contraire ay coup d'épée dans le dans l'eau rek ngay gis parce que dañuy def pour que maintenir te tamit mais loolu c'est en faveur de l'état du Sénégal euh, du régime tey ñoom buñ buñ ne ñoom buñ leen parrainé keneen mais loolu ça ça ça profite à qui ñoom bu ñu parrainé wul kenn bu élection jotoon waa Pastef voté lu ñu kenn supposons Amadou Ba rek dem ak ñaar ak ñetti candidat c'est au profit du pouvoir du dëgg jàmm mais loolu ma yaakaar ne seen diggante bi mu ñagasee ñee gedd ñu génnee ci ñee loolu tax tam waa léegi yow yaa ngi gis diggante diggante lu mu ñagas-ñagas tey Thierno Bocoum tey maa koy lire fii la ko Ousmane Sonko accusé ne Macky Sall lay liggéeyal te pourtant tey maa ngi koy lire mu ne euh, DGE li ñuy rejeté li ñuy rejeté Euh, kiiw euh, kiiw mandataire Ousmane Sonko du yoon parce que du question da nga même boo nekk ba la nekkee opposition même boo leen déggoowul sax mais mais cas moment yi mel noonu yu yu déterminant comme vote du bureau assemblée mais xanaa doo jël gay gi nga yow say ay voix yi ñu voteel pour yow nga dem di ko jox benn mais loolu loolu loolu loolu loolu boo ko defee sax c'est mais loolu lu muy ndi mooy li ma la wax négociation yooyu protocole de d'accord dama ne la bintu protocole boo d'accord négocier coopérer li militaires yi policiers yeeg arme bi di wax naan coopérer dañuy jàpp bandi bi gën a mag ci àdduna dañ naan boo coopérer ñu am lu ñu la nangul nga nangul lii te bi gisuñu popularité bi mu am ak électorat am yokku na sénégalais yi bëgg nañ ko ñu xam ne Ousmane Sonko mii arrangé wu leen parce que ñu bëri bu ñuy bu ñuy jugé jàpp parce que ah. li nga xamante ni am na euh, fan yi ñuy gis yëpp jàpp nañ lépp rek mooy Ousmane Sonko bañ a dem waaw mais euh, Bintu d'accord naa ci euh, yow nga def sa analyse personnelle en tant que journaliste mais tey aussi yaa analyse personnelle mais ñu si bëri mais loolu da nga ne yow euh, Sénégalais loolu lañ jàpp bu ñu demoon élection Ousmane Sonko day gagné loolu nga jàpp mais man loolu jàppuma loolu non mais man loolu jàppuma loolu parce que man lu tax jàppuma loolu mooy xëy na yéen mbaay ak rumbaay bi ak ak niveau d'organisation niveau terrorisme bi nga xam ne tey moom moo moo yore waa Pastef yéen loolu ngeen di jaawale ak électeurs yu toog kër bokkuñu man ñun dañoo nekk ci champ bi nekk ci kër yi ñun dañuy toog ak nit ñi dañuy dem ak nit ñi d'accord soo ne Sonko il plus organisé il plus bandi que les autres candidats moo leen gën a nekk bandit moo leen gën a bëgg a dugg réseaux sociaux moo gën a bëgg jël pouvoir bi dina doon tig au tac mais cela ne veut pas dire que Sonko moom moo gën a ëpp légitimité Sonko légitimité am dama ne la biir Casamance sax légitimité am dañ koy war a seetaat waaw non mais parce que parce que élection chiffre la ay chiffre la Sonko demagul élection ba gagné Macky Sall amul wala ba gagné pour le régime donc pourquoi ñu ne noo bu ñu dem bu ñu dem ñaata at xanaa dañuy dem ba ba ñu ni màgget Macky Sall déjà nekkatul candidat kon kay léegi on recommence à zéro léegi compte à rebours la léegi il n'est pas candidat lui mooy il doit accepter parce que il a commis mais mais léegi. pourquoi décision justice bi waa DG appliqué wuñ boobu la ñëpp di laaj avant communiqué bi di génn. et que même ses avocats sax ñoom Ousmane ko ñu ngi def communiqué di dénoncer lu ñu mel parce que nee nañ c'est pas DG ci boppam. ñoom ñuy ñuy ñuy ñuy ñuy communiqué ay ay procédures yoo xamante ni. ay ah, avocats dañ sans que. déedéet ñoo waroon appliquer li nga xamante ne mooy décision. mais appliquer lan la ñuy appliquer ban décision justice ban bi bi bi bi bi bi bi bi bi def. mais mais mais juste moo ko moo dëgg ci léegi déglu ma wax la dama léegi dama lay expliquer euh, d'abord même ci kii bi jugement bi man d'abord dafa am loo xam ne man sax d'accord te man lu ma ñàkk xam yoon ñàkkee xam yoon Ousmane Sonko fi mu mujjee dëkk Cité Gorgor gi la dëkk foofu la këram foofu lay jabaram nekk. foofu lañ ko fekk jàpp ko kon tey contumace dañ ne buñ lay buñ la jàppee di la jugé ah fi nga mujjee dëkk fi nga dëkk foofu. non mais Ousmane Sonko Ousmane Sonko période bi ñu koy ci la dem Ziguinchor am fa 10 jours mais Ousmane Sonko musul nekk Ziguinchor waa Ziguinchor sax dañ koy nee na dañoo dem bay tagg ay pot pot lampe di takk ay morceaux yu xonk yëpp naan maire boo xam ne kenn du ko gis dëkku fi maire bu fi dëkkul Ousmane Sonko dakaar la dëkk fii la dëkk si cité kër goor yéen tamit dañu waxante dëkk yéen xam ngeen ne fii la dëkk ay jabaram fii la ñu yeewoo su ayee ci kii ñaari fan ayee ci kii ñaari fan ngeen bëgg na fee la dëkk mais dëkku fa dañu waxante dëgg xam nga la vérité c'est que sénégalais yi ñoo bëgg di warante benn Ousmane Sonko ci procédure bi même bu ñu ko doon jugé fii lañ ko doon jugé Dakar léegi yóbbu na ko fële il a fait exprès parce que mooy base am parce que foofu juge yeeg parce que moom monnaie dafa am monnaie locale am am am commune am am léppam jihaad di ay terroristes ñoo fa dëkk moom ay séparatistes ñoom ñooy ñooy base politique am te ñooñu ñoo nekk Ziguinchor mais joolaa yeeg Casamançais yi nga xam ne sont conscients mais toppatoo wuñu Ousmane Sonko parce que ñooñu ay sénégalais lañu ils se disent que sont des sénégalais affaire moom yi muy dox nii ñoom doxuñu si donc si méthode biñ ko jugé baaxul y a vice de procédure d' abord benn deuxièmement mooy décision Ziguinchor munul tax munul impacter ba nekk loo xam ne cour suprême moo ko validé léegi nag entre que décision de justice balaa ñu ko validé mais l' acte administratif moom mais day continuer chez mais léegi su continuer parce que dañ leen ne dañu waa DG dañ leen yónnee kayit ñu ne dañ ko radier DG ñoom kayit boobu la ñuy jël moom la ñu appliqué kañ la ñuy ñëw ne euh, dañ koy réintégré ñu gis kayit bu jógee ci ministère de la justice boo xam ne di Sénégal représenté par ñu ne Euh, telle institution moo ko représente moo ñëw moo kii fekk procédure yëpp écoulé nañu léegi ima imagine bu ñu ko réintégré léegi ñu dem cour de cour suprême cour suprême ne rejeté jugement bi ñu dindiwaat ko non xam nga yéen non c'est yéen procédure bi ngeen comprendre sa cest dire que lii acte la boo xam ne dañ ko dañ ko dañ ko def ba pare ba ba DG enregistré ko ba mu nekk si procédure bi bokk la loo xam ne gis nga bu tey moom kenn jàpp ko kenn euh, kenn dindu ko woon ci liste yi supposons bu doon kenn dindu ko si liste mu ñëw tey ñu ñu accuser ko benn affaire ñu tëj ko léegi-léegi su ko neexee sax su ab defee appel moom si defee appel tëj boobu sax day dem day ko day kon nekk ci liste bi moo tax tamit le contraire aussi c'est comme ça mooy moom tey moom moo def appel mais fekk boobu din nañ ko ci liste yi mais procédure bi day dem ba fee day dem ba ci cour suprême bu cour suprême ne ah Ziguinchor de li ñu wax dëgg la kon nu confirmons et nous demandons sa réintégration sur les listes mais loolu mun na nekk dans deux ans mun na nekk dans six mois mun na nekk dans parce que loolu juste le temps de la justice n'est pas le temps de la politique madame madame parce que yéen bu leen jaawalee parce que vous voulez que coûte que coûte qu'on juge Ousmane Sonko wala coûte que coûte que lii aboutir wala mu bañ aboutir non justice doxewul noonu dafa am temps justice du jigéen bu ëmb juróom-ñeenti weer wasin déedéet justice moom reenu ñaambi la rek kenn xamul fu muy daggee donc nañu bàyyi waa justice def seen liggéey man daal loolu laay conseil ba pare di wax jeunesse bi nañu moytu parce que yéen ki ngeen di xeexal ki ngeen tax ngeen di rey seen bopp mais kooku mu ngi négocier kooku mu ngi négo te nga li ma lay wax nii dama bëgg vidéo yi nga téye ko parce que yàggatul yàggatul moom ci boppam dina toogi ba def déclaration à la dañ Sonko dinañ ko jox te télé jox ko lépp na ko defal dëkk mu def déclaration boobaa tamit gars yi ne naan dañ ko dorogee il faut dañ ko dorogee dina def déclaration il va faire il va reconnaître le faits li xewoon Sénégal euh, act de terrorisme tey jii boo demee Mboro xaw ma. que tey loolu boo ko waxee tamit dina dina neex jàpp ci xel parce que tey euh, mënoon na def loolu lu yàgg te def ko. mu munoon def la. munoon dem négocier lu yàgg def ko mu ngi téye fi mu téye ba ci. waaw mais léegi dañ ko téye. nangul dem. kaasa nangul dem fan. nangul dem dialogue ji. non loolu. loolu dem na ba tax seen diggante moom ak xalifa Sall sax am problème. waaw kon yaakaaroon ni bu ko doon def ko depuis boobu ba tey du tey la koy commencé def. aussi waaw mais mais boobu dafa defe ne woon moom ci li mu nekk kenn xamu ko moo tax mu doon def opté résistance boobu mais léegi moom ci boppam dafa reconnaître que ni ñi mu ñi mu nekkal. ñi nga xam ne ñooñu ñoo ko dugal tey ci li mu nekk moom il reconnaît parce que yaakaar woon ci àdduna gars yi dañ ko def ay filature ba jàpp ko ay filature la tey am na journaliste yoo xam ne man j'en suis persuadé que sax yu nekk ak Sonko xam nañ loolu mais duñ ko nangu wax avocat Sonko yi tey boo leen laajee ils vont te dire Sonko sa page Facebook moom géré wu ko pour te dire mais sur ko gis nga lépp luñ ci bind dafa am autorisation ñu bind ko ci kon kay kon su ma nee la ñu ngi négocier rek ñu ngi négocier yow nan la ñuy jàppee nit kaso jox la jox la sa téléphone ne la del del posté del bind loo neex loolu amul Sonko il a euh, am na euh, nu ñu koy waxee coopération boo xam ne euh, dans le dans le jargon judiciaire police wala gendarmerie wala kii bu ñu jàppee bandi wala terroriste dañ naan boo coopéré ñu defal la lii mais da ngay nangu nga accepté wax dëgg bi wan ñu lépp fi mbiri jaaroon yëpp léegi ñun aussi ñu am lu ñu nangul même bu dee buggoo perte sa électeurs yi newoon ak yow parfois ñu may la lan nga bëgg bind ñu bindal la ko sa page Facebook nga bindal la ko est-ce que xam nga li ma la wax yaa ngi comprendre <laughs> mais nag neexu la comprendre parce que xam nga tey bu doon Cheikh Yérim sek moo toog expliqué gars yi non parce que mais ñoom aussi nekkaguñu niveau boobu niveau de information boobu ñoom Cheikh Yérim man nag man damay wax ak yow de te li may wax yow nii dara du ko dindi euh, Fat Bintou fii laa toog en 2017 ma ne Karim Wade ne sera pas candidat dans cette élection gars yi euh, waa FPDR Front Patriotique pour la défense de la République Abdoulaye Wade ko jiite woon ma nekk président de l' bi ma waxee loolu waa waa Front Patriotique bi dàq ma génne ma ci coalition bi mais boobu ba léegi est-ce que gis ngeen Karim nekk candidat parce que man boobu yëg naa ne na man dama am information ci base ba ci ci origine ba. kon coopéré na ba xam na ni na mm-hmm. non du bokk non seulement du bokk te tamit euh, fu mu nekk nii liñ koy fayal euh, fële. hôpital mm-hmm. ah bu bu coopéré woon duñ ko fayal de fële lañ koy bàyyi. fële fi bandi fële ci bandi yi lañ koy bàyyi waaye coopéré tax ñu yóbbu ko fa léegi prisonnier de luxe la day jox gars yi information di leen won yoon yi li affaire yi nu mu dëggee parce que aussi c'est pour l'intérêt du Sénégal yow tamit ñu bëri dañuy laaj ndax Ousmane Sonko ba mu ba ko jëlee si Bikotaan yóbbu ko hôpital principal pavillon ba mu fa nekkee ba léegi grève de la faim boo ko defoon léegi deewoo deewoo boo demoon bref grève de la ba léegi deewoo non yow dama lay laaj rek Fatou Binta yow ñetti fan boo ko toogoon lekkoo naanoo ñetti fan yow bu kon nag da nga ñëw fii naay seeni waaw mu ngoog kon boog nañu wax di dëgg mais temps bi mais temps boobu laa la wax da xam nga temps boobu da ko war a fay moom bu mënul nekk di jëlal Ousmane Sonko hôtel pour lan mu koy jëlal hôtel mais boo di gisee loolu te il est dans moom ci coopération la nekk dañ ko nangul loolu bés bu arrêté woon coopéré gars yi gars yi yóbbu ko fële Sébikotane man maa la wax lii xoolal dugal ko cellule yu tàng jër yi parce que mu ngi coopéré mu ngi waxtaan ak gars yi mu ngi leen di woon yoon mu ngi leen di woon lu mu jot ak lu mu jotul def yëpp gars yi xam nañ ko léegi ñu ngi def rapport yi bés bu ñu demoon atte jugement am da nga da nga naan président gisee li mu du nit fu mu xamee lii yëpp mais mais tey le réseau le réseau djihadiste le réseau terroriste fii su région bi euh, euh, kii euh, am na euh, kii dëkk bi nekk fii la côté xombol xaw ma déggoo ko tey yi fan gars yi terroriste yi ñu fa jàpp yëg nga ko voilà donc pour te dire que mais ñooñu kan moo leen kan moo leen kan moo leen kan moo wane ñooñu kan moo leen jox turu ñooñu benn par benn mais c'est Sonko Ousmane Sonko la du keneen Ousmane Sonko c'est lui qui informe maintenant moom mooy jox gars yi les information di leen teg sur des di leen wan yoon bi te nag dinañ fa yegg parce que li tax mu nekk principal xam nga lu tax mu jékki-jékki mu ne reprendre naa grève de la fin loolu yëpp dañ ko organiser rek pour que mu mu rassurer partisan bi. mais coopéra coopération diggante moom ak ñan la. mais wax naa la ko sànq nee naa la force de force de défense force de l'ordre tey police police bu jàppee ay boy bandi ci ci àll bi policiers yi bu ñu jàppee boy yi jaay drogue xam lu ñu leen def avant ñu leen di yóbbu si juge ñu leen di juger dañ leen di wax boo leen coopérer. soo leen ñu waxee ñan ak ñan ñooy jaay drogue duñ la yow duñ la yóbbu ci kaso ba dañ la yóbbu ci néeg nga fanaan ci néeg bi da nga lekk lu neex danga nga tëdd fu neex Sonko foofu la tool foofu la réew mi toll. Ah, avocat wala ñu ànd ak ñoom mais avocat mais avocat di xeex li nga xam ne moom mooy. non xeexu mais loolu c' no le non kooku c' est le politique. no côté politique dañuy maintenir mais loolu sax c' est pour le mais loolu état la gën a arrangé le régime la gën a arrangé. buñ naan non Sonko defaat na fin gars yi gëm nga mais parrainage yi ñëw na Sonko buñ ko parrainé wul kenn du ko parrainé nga ñu bañ a parrainé kenn ma Amadou Ba dina am parrain moom dina am parrain dina am <laughs> kon moom day candidat la moom kon léegi ça profite à qui mais ça profite waa au régime donc lui même au niveau de l' assemblée nationale assemblée jox jox na assemblée national bi yëpp jox na ko jox na ko benno moom Ousmane Sonko te Biram Souley du weddi loolu Biram Souley moom moom mu ngi ci biir ñeex bi moom ci biir coopération moom mu ngi ci. dara ump ko ci moom moom na ko gars yi na na na na weddi wala wala muy indi des preuves que ñoom lii lii na explique lu tax assemblée nationale ñu jël place yi ñu waroon jox euh, opposition bi mais boo ko joxul boo ko joxul yeewi sax jox ko ñeneen ah boo ko joxul yeewi jox ko ñeneen comprendre ma de joxoo ko yeewi joxoo ko wallu léegi nga dem jox ko benno ci benn actualité bi remaniement bi nga xamante ne à cinq mois des élections gars yi bëri ñu koy wax euh, ban jàng nga ci am aussi Macky Sall mu changé li nga xamante ni mooy mooy mooy mooy ku ne mu changé teg teg fee. Hmm. bon man remaniement bi euh, Fat Bintou man je dis ah man je suis je suis très déçu parce que man je man actuellement man dama buggoon nit ñi gouvernement bi préoccupé wu ci problème mu Sénégal yi. parce que Fat Bintou man si je combat Ousmane Sonko c'est pour l'intérêt du peuple sénégalais mais combattre mu Ousmane Sonko parce que dama bëgg gars yi di yaataa yumbe ndaataa talax déedéet parce que tey Amadou Ba ne peut pas être premier ministre et candidat man je ne suis pas d'accord parce que man économique da ngay démissionner Abdoulaye Daouda Diallo tey bu newoon candidat conseil économique est-ce que dina toog dina rester foofu naan day mooy président conseil économique mais parce que loolu àndul c'est pas cohérent et puis ça dessert Amadou Ba da koy desservir parce que déjà euh, gars yi xoole wuñ ko candidat bu bees dañ ko xoole ku nekk ci soos bi ci ñeex bi la nekk waaw il est toujours premier ministre donc dafa mel ni euh, comme ni Senghor defoon Abdou Diouf jékki def def décret nommé ko président mais donc rafetul daal élégant c'est pas élégant bon ensuite euh, que nit mënoo lépp nag tamit ñu jox la ko sur sur euh, sur un plat quoi Amadou Ba moom euh, man man pour man bokk moom naa lépp dañ koy jox sur un plat quoi moom la preuve tey Ziguinchor donc donc yaa yaa yow c'est que li ngay wax ni mooy monotonie bi quoi y a une certaine monotonie maanaam musique bi varié wul quoi même même musique bi ngay dégg rang rang rang bi rek ngay dégg donc alors moom dafa indi lu bees moom Amadou Ba dafa waroon indi feeling charge bu bees dafa waroon indi loo xam ne bien vrai que Macky danse na euh, Macky efficace na am na lu mu liggéey mais je peux faire mieux que Macky nañu waxante dëgg man su ma doon candidat Macky di ma jàppale yëpp damay taxaw télé je ferai mieux que parce que nag sa euh, Macky sa euh, Macky a fait mieux que bi muy jël réew mi dafa ne je ferai mieux yi votel ko ci mais boo bëggee yow li li li Macky Sall liggéey rek loolu ci nga ci nga wéeru mais man je me dis que ne ah c'est c'est xam nga loolu c'est c'est c'est la facilité c'est être partisan de la facilité alors que nañu soyons nañu gën a sérieux avec nous-mêmes ñun ñu ànd ak Macky ñun ñu bëgg héritage ji law ba faw parce que li ñu def nii c'est pa du sérieux c'est de l'opportunisme parce que tey ñi ngay gis ñu wër Amadou Ba kenn gëmu ko ci kenn gëmu ko ci parce que waa APR yi bougé wuñu ah yëngu luñu gis nga Saint-Louis mais Saint-Louis presse bi moo maquillé C'est la presse qui a maquillé arrivé à Amadouba, mais à Saint-Louis, il n'y a rien. Euh, c'était un fiasco à Saint-Louis. Man, ñun suñu parti Fulak Fayda ay kilifa yu fa nekk ñoo ne ma kii kii bu dee lii la bëgg a jël réew mi moom mënut a nekk mais parce que c'était euh, tournée bi c'était c'était naze c'était naze donc euh, lenn aussi dama ko ci dolli rek te loolu man loolu damay interpeller les acteurs politiques tey mënuñu wax ne Karim Wade parce que Karim Wade ba léegi nekkagul kanida problème mu xaalis lañ ko toppee. non Khalifa fay na. 5 dugal. dugal na waaw moom la ñëpp wax. léegi Khalifa mënul nekk candidat te Karim du nekk kanida candidat mënta nekk benn te loolu dinaa la wax conclusion bi lan lay joxe Karim Wade su nekkul candidat euh, Sonko di négocier ci suuf pour que jàmm am Sénégal en 2024 ah non non non non mais nag kaay ma la même Karim si boppam man am naa source sûre Karim tey bu déposé dossier am balaa moo ñëw balaa moo dugg si Sénégal man j'ai des sources day fekk conseil constitutionnel validé na dossier ba pare mu soog a ñëw Sénégal kon ngay xam kon kooku xam ne dara wóorul. moo tax ñëwoo ko <laughs> xaar <laughs> ne. koo xam ne dafa ne balaa maa ne balaa maa ñëw Sénégal il faut sama dossier dugg conseil constitutionnel ba ñu validé ko ma soog a ñëw moom la Karim wax kon kay war nga xam ne Karim darul bokk. léegi waa PDS dans tout ça. mais waa PDS xam nañ lépp mais ñoom noonu la ñuy politiquer man Abdoulaye dama yar man Abdoulaye dama yar PDS noonu la ñuy politiquer bul sonn il sont entre le flou et le moyen clair PDS noonu la ñuy politiquer contrairement nag ak Abdoulaye Wade Abdoulaye Wade moom guerrier la tey yal na yàlla guddal fanam mais Abdoulaye Wade bu bu nekkee si yore ay xelam faculté dëgg lay wax comme ni ma lay wax nii loolu lay wax Karim munta ñëw parce que amagul kitis il n'a pas yor joxaguñ ko kitisam léegi nag ces manquements graves yooyu yëpp dajaloo la paix menacée en 2024 Touba du bokk si élection Karim Wade narutal ma candidat mais sa waay nañu nañu repousser président Macky Sall nañu repousser élection yi ba 2026 mun nañ nangu sax nga toog ba vingt 2026 Sénégal ñu réglé ko no mais Sénégal mais mais opposition bu ñu ko bañee kon ñoom duñ dem élection yow Karim Wade Karim Wade dina dina moom. mais opposition bi du Karim rien ñaan kan moo fi nekk waxal kan la. maa ngi gàkkoon fi. waaye bu ma wax ñooñu. yow ñooñu waaye ñooñu duñu ay candidat ñooñu. waay bu ma wax ñooñu dama ne boo génnee Karim Wade. Ah. loo ko njombar loo ko bañ bañ xam ne mën na daw Karim réalité la Ousmane Sonko réalité la. lu mhm. dëgg kenn mënu ko dindi réalité la mais Ousmane Sonko sax bu bokkul élection rek doy na doy na ñu repousser élection wala loolu. ah <laughs> waaw léegi Touba warut a bokk ci élection waruñu voté à Touba Touba neen dafa bëgg statut spécial am waaw léegi nag trois facteurs yooyu nga am ko ci kon ci ci réew ci réew bu ñu ne réewu démocrate la démocratie moo fi dox mais kon li loolu on est dans une na nañu repousser élection yi organiser waat defaraat toogaay yi ba régler condition yëpp nag soo ko def élection man loolu mooy. est moo leen di ci Amadou non mais Amadou Ba Amadou boobu mais Amadou Ba day jël loolu sax da koy may man dama koy dimbali sax loolu da koy may temps sax mu liggéey mu gaay mu liggéey mu am base parce que Amadou Ba amul base. Ah, Amadou Ba non Amadou Ba Amadou Ba daal israélien la xam nga les israéliens ils sont partout chef chez eux Amadou Ba moom amul base Sénégal moom xaw ma fan nag waaye fi moom amu fi base sérieusement dëgg rek laay wax. nii bu ñu indi bu ko la non dangay euh, da ngay Sall dafa ramper. Macky bi muy nekk président du woon premier ministre du woon président assemblée xoolal schéma bi ñu tegal xanaa Macky Sall sax waroon na jàng ci moom bi muy jël pouvoir bi il avait démissionné de toutes ses fonctions dafa démissionné fonction am yëpp mi mais pourquoi Amadou Ba mënul tirer leçon do am courage en deux même voilà wala rek à mois que Macky mu bàyyi yeneen gars yi dem poser seen euh, nekk ay candidat ku nekk loo am nga jël mais dajale ñëpp ci autour d'une personne alors que yow kooku amul amul sax il ne détient même pas les les les les les cinq pour cent de euh, de Benno Bokk Yaakaar Amadou Ba. ci mais Macky Sall moom c'est le meilleur moom Macky mais cela ne veut pas dire que. Euh, mais xam nañu na. non mais du mais Ablaye Wade mais Ablaye Wade Ablaye Wade du cuune mais Ablaye Wade ci Macky dafa juum bi mu jëlee Macky rejeté ko dafa juum xanaa xamoo dëgg-dëgg. Euh, génie dëgg mooy def ay erreur mortelle euh, numéro 10 bu gën a aay si mooy mooy raté penalty te Macky Sall fu mu ne penalty lañ ko jox penalty mu dem jox ko Amadou Ba. <laughs> donc c' est partagé donc man aussi c' est un réel plaisir ngeen ñëw fi à Pikine et ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi envisage def un meeting. de mobilisation bu bu exceptionnelle pour le président Macky Sall euh, aussi euh, pour pour son candidat Amadou Ba parce que quel soit Alpha aussi comme que moom nee na moom la bëgg euh, ñun dinañ ko jàppale mais nag na xam ne euh, il n'est pas encore trop tard il n'est pas encore trop tard donc na repousser élection yi Amadou Ba moom gën a defarwaat est-ce que da wax ji mais mbër bu buñ ko yóbboo j'ai peur ah man ragal naa sax deuxième tour lu ñu fa dem de ñun ñun majorité présidentielle j'ai peur et puis man conviction laay waxee conviction waxuma pour lu neex kenn Macky Sall sax xam na ma ci loolu donc ma leen di remercier di remercier waa Fulla ak Fayda di remercier aussi président sama vice président Idrissa nga xam ne c'était mon directeur de campagne tey bi ñu renoncé suñu candidature pour euh, accompagner le choix du président Macky Sall mu d'accord ànd ci euh, di remercier aussi le président Ablaye Daouda Diallo ci aussi ci ci esprit bu mu yoree boobu léegi mu ngi topp si ñun di di négocier pour que ñu mun a ñëpp nekk bloc te wax dëgg yàlla loolu grandeur la ci moom parce que wax dëgg yàlla chaque jour sax il mari sax ma def benn émission sax mu woo ma ne ma non bul waxatee nii xam nga li ma donc loolu yëpp ko malgré qu'on est un parti politique d'obédience culturelle libre donc ñun kenn moomuñu kenn tënkuñu donc ma lay remercier Bintou ay ak sa équipe yëpp quoi. jërëjëf kontaan nañu ça a été un plaisir yàlla jàkkaarloog yow encore une fois di leen jox rek di daje yéen ñi nga xamante ni rek yéen a safoo di seetaan Equivox TV beneen yoon ak beneen invité d'ici là portez-vous bien restez à suivre nos programmes sur Equivox TV merci.